والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مباكي نوغلين دي نوي جنيو بالإسلام بغينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديال سيوات نانج تيسين إميسيون دارجي نينكو باخو أمالي تي الجمع ba tey rek noo ngi ci téere bi nga xam ne moo tudd tasawudu sixaar ñu toll woon ci faslun fi salawaatil xams lu jëm ci mbirum julli juróom tey nag nu fas yéene jàng faslun fi tahara lu jëm ci mbirum laab kon ba tey rek noo ngi ci mbirum julli julli juróom muy laab ndax julli ak laab dañoo doon ñaar yoo xam ne dañoo ànd te mënuñu dañoo ànd te ndax julli mënta ñàkk te balaa moo mën a baax laab da koy jiitu inna taharata naka laab la day naa fi nun waa malik wajabat war na wala la day naa fi nun waa lislaam wajabat war na dikran ci tuddug alquran wa sunnatan ak ci tuddug xadis wa ijmaan ak ci dajeg fóore yi sabat goog sax na mu ne laab dafa doon loo xam ne lu war la ci lislaam loo xam ne dafa peng alquran da ko indi yonent bi indi ko borom xam-xam yëpp dëppoo ci mook julli ñoo bokk àtte ci lislaam ni julli mel rek nga xam ne képp koo xam ne rek weddi na warug julli moo ko weddi warug laab ñoo yem képp koo xam ne it bàyyi na euh, laab moo ko bàyyi julli ñoo yem ndax julli balaa mu mën a baax laab da koy jiitu ndax alquran dafa wax ne yaa ayyuha alladina amanu إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا معا فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ma yuridu llaahu li yajcala alaykum min xaraj walakin yuridu li yutahirakum wa li yutimma nicmatahu alaykum laallakum tashkurun aaya bi day dëggal ne julli balaa moo mën a baax laab da koy jiitu ndax dafa wax ne bu ngeen dëgmalee julli te amewoo leen ak laab su fekkee ne jàpp moo nekk seen farata na ngeen jàpp su fekkee ne da ngeen a amee janaaba na ngeen sangu farata su fekkee ne seen farata mooy tiim ngeen tiim farata su fekke seen farata moy tim ngeen tim bok na ci lu melne ngeen di tukki euh, tukki bi tax ngeen ñak ndox su man ngeen tim batay su fekke ni tukki bi am ngeen ndox waye bu ngeen jëfëndiko ndox mi du ngeen am lu ngeen naané wala jur gi ngeen andal du am lum nane, su boobaa batay tey seen farata moy tim wala ngeen tawat ba mënoo leen jëfëndiko ndox ndax bu ngeen jëfëndiko ndox mi seen tawat ji dana yéx wër wala euh, dana dana yokk wala leneen dana leen ci dale loo xam ne dalu leen woon ci tawat ji loolu lépp su boobaa seen farata mooy nekk tiim kon loolu day dëggal ne rek julli balaa mu mën a baax laab da koy jiitu laab nag dafa am ñaari xaaj lu ñuy wax tahaaratul xadas ak tahaaratul xabas tahaaratul xadas mooy bu la jàpp waree nga jàpp bu sangu farata waree nga sangu bu dee sa farata mooy tiim nga tiim taxaratul xabas nag mooy nga fexe ba saw yaram dañ ci sobe yére yi ngay sol di ko jaamu yàlla dañ ci sobe bu nee yére nag lépp looy ànd lépp looy àndal rek muy montar muy euh, muy mbaxana muy kaala lépp loo xam ne yaa ngi ànd ak moom rek ne su boobaa da cay bokk ci àtte ba nga fexe it ba ba ngay jaamoo yàlla dañ ci sobe kon ñetti yooyu la mooy taxaratul xabas saw yaram dañ ci sobe barab bi ngay jaamoo yàlla dañ ci sobe yere yi nga sol dañ ci sobe kon ñet yoy la nga fexé ba set ci sobe sobe lol nak muy taharatul khawas ngir nga matale ko faaw nga xamé lan mo lab ak lan mo labul kon ñu fas am ay leral yu ndaw rek ci lol yi jappal ne lepp lo xamne rek mi ngi dundu ca jamono jëmi dundu lab na lepp luy dundu ca jamono ja muy dund ak donte sax dafa juddoo ci ay xayta lu mel ne sax wala yu demee noonu jàppal ne ca jamono ja muy dund laab na boo ko julliwaalee sag julli du yàqu ba tey noonu mu laabee loolu di dund noonu mu laabee ci jamono ji muy dund lépp luy génn ci lii nuy bëgg a wax laab na muy rànqooñam muy tiflitam muy ñandaxiitam muy aw ñaqam xamal ne laab na bu dee ba tey loo xam ne day nen ab nenam ca jamono ja muy dund bu génnee ci moom laab na lu dul ne lu dul ne nen bi dafa nëb laab na lii bàyyi ko ci gimiñam yi laab na mu xeeti lor yi yëpp laab na ba mu des nag loo xam ne dafa bàyyi ko ci estomac bi te ba mu dugg ca gimiñam ak bi mu génnee dafa so bokkul nga xam ne dafa soppi ko su boobaa xamal ne laabul su fekkee nag am soow la nag su boobaa bu dee nit la ci nit la bàyyi ko xamal ne laab na su fekkee ne ci lim bàyyi dafa doon loo xam ne ndundat la su boobaa danga koy def ñetti xaaj ndundat yi dafa am ndundat yoo xam ne dañoo dagana lekk am yoo xam ne dañoo araama lekk am yoo xam ne dañoo sib ku ko lekk su boobaa su fekkee ne dafa dagana lekk xamal ne am soowam bu taqee mën nga ko julliwaale dara nekku ci laab na su fekkee ne loolu soow moom mi dafa bàyyikoo ci loo xam ne dafa araama lekk su boobaa xamal ne laabul su fekkee ne dafa bàyyikoo ci lu ñu sib ku ko lekk ba tey jàppal ne dañoo sib mu taq la nga di ko julliwaale kon nga nga dindi ko bañ ko julliwaale moo gën nga di ko julliwaale ba tey su fekkee ni li nga xam ne day bàyyikoo ci buntu sawukaay bi muy am saw wala moo xam mani la moo xam mu wadd la moo xam math yu la lu mu ci mën di doon wala mu doon loo xam ne ay xayta la lu bàyyikoo ci buntu suuf bi su boobaax bu dee nit la jaxamal xamal ne laabul loolu ñu wax nag bu dee bu dee maniyu ak yu ak yu jar naa ràññee ndax mani yu mooy ndox ndox mu far lay doon moo xam ne bànneex bu rëy moo koy génnee lu mel ne nit kii di di séq ak di di jote ma lu ñuy wax rapport sexuel su boobaa loolu ndox mu far mën naa génne ca moom lu ñuy woowee yu xamal ne loolu bu la taqee mënoo ko julliwaale boo ko julliwaale sag julli day yàqu ba tey li nga xam ne moom mooy euh, euh, mathiyu ndox la moo xam ne ndox mu ñàkk far lay doon ndox mu oyof waaye ndox mu weex lay doon moo xam ne bànneex bu ndaw moo koy génne nit ki mën nay fo ak yu demee noonu wala muy xalaat am lu génne ci moom loo xam ne ndox mu mu ñàkk far lay doon moo xam ne mu oyof la loolu moo tudd mathiyu ba tey moom sobe la ba tey su fekkee ne loolu ñu loolu loolu bu dee euh, wadiyu la wadiyu nag moom mooy li nga xam ne day bàyyikoo ci euh, li ci ëpp nit ki bu sawee ba noppi am na luy génn ci moom ndox mu far loolu moo tudd wadiyu kon ñetti yooyu bokkuñu muy wadiyu maniyu ak masiyu bokkuñu kon loolu lépp su bàyyikoo ci nit ki moom xamal ne laabul su fekkee ne dafa bàyyikoo ci ndundat danga koy def ñaari xaaj ndundat yi loola nga def ko ñetti xaaj ndundat yi dafa am yu dagan a lekk ak yu araam a lekk ak yu ñu sib ku ko lekk su fekkee ne nag dafa bàyyikoo ci loo xam ne dafa araam a lekk wala mu doon loo xam ne dañoo sib ku ko lekk xamal ne lool yi bu bàyyikoo ci moom laabul muy am saw muy xayta muy lépp loo xam ne day bàyyikoo ci sawukaay bi wala muy bàyyikoo ci buntu suuf bi rek laabul su fekkee ne dafa bàyyikoo ci loo xam ne dafa araam a lekk wala mu bàyyikoo ci loo xam ne dañoo sib ku ko lekk bu dee nag dafa bàyyikoo ci loo xam ne dafa dagan a lekk su boobaa ñaari xaaj nga koy def yu dagan na lekk yi dafa am yoo xam ne dañ leen a xamee lekk sobe ak yoo xam ne baaxoowuñoo lekk sobe lu ci mel ne xar wala béy wala nag yiñ baax yiñ xamee lekk sobe nag lu ci mel ne ginaar ak kanaara ak yu demee noonu su boobaa ñaari xaajoo yooyu nga koy def bu dee xayta mu xayta bi ñuy wax ak saw mi dafa bàyyi ko ci loo xam ne dafa dagg na lekk ba noppi xamewuñ ko lekk sobe te lañ koy xonteel doon lu laab muy lu mel ne xar wala béy wala nag nga am ko ci sa kër di ko xonte lu laab su boobaa lay bàyyi ci moom ci xayta wala ci am saw xamal ne laab na bu la taxee boo ko julliwaalee du yàq sa julli su fekkee ne nag loolu dafa doon loo xam ne xamu dañ koo xamee lekk sobe su boobaa xamal ne lay bàyyi ko ca moom ci xeet yooyu laabu laabul su fekkee ne nag ba des nag loo xamee nañ ko lekk sobe waaye danga koo tëj ci bërëb ba noppi di ko xonte lu laab bàyyi bàyyiwoo ko muy génn su boobaa nag lay génn ca moom doo doon loo xam ne lu laab la kon loolu mën naa mën naa xàmmee ba tey bu dee lay génn ca lay dund dafa bokk ci yi ñuy bëgg a wax xamal ne laabul mooy lu mel ne deret joo xam ne day yol wala dëtt muy dëtt moo xam dëtti kase la moo xam dëtti wànjar la muy dëtti ju ànd ak deret xamal ne laabul ba tey loolu di dund ci jamono ja dund su fekkee dañoo jële ci dara dara ci moom ci aw yaramam mu doon loo xam ne boo koy dindi ci moom day day metti lu mel ne ab baaraamam wala wala wala wala sax béjjanam su boobaa su fekkee nañ koo dindee ca moom ca jamono ja muy dund xamal ne laabul lu mel ne xar nga wala béy nga nga dindi béjjan wi ci jamono ji muy dund nga xam ne rendeeguñ ko su boobaa boo boo ko doo ko mën a julliwaale ndax su boobaa du laab lépp loo xam ne yaa ngi koy dindee ci loo xam ne day dund ca jamono ja muy dund mu doon loo xam ne boo koy dindi ci moom day metti xamal ne bo loolu bu dañee ca moom laabatu laabul loolu di dund nag su fekkee ne dafa dee su fekkee ne dafa dee su fekkee dundat la su fekkee dafa doon loo xam ne dafa dagana dagana lekk ba noppi ñu rendi ko xamal ne lépp loo xam ne waxoon nañ ne laab na ci jamono ji muy dund day continuer di laab su fekkee ne nag moom loo xam ne médd la su fe su fekkee ne nag dafa médd su boobaa laabatul su nag moom lay nekk ca moom noonu du du doon lu laab muy muy moo xam yàppam moo xam lu mën a doon rek ci yaramam boobu bi laabul su fekkee ne nag dafa doon loo xam ni daganut a lekk moo xam dañoo sib ku ko lekk wala mu araama lekk su fekkee ne dafa médd ba tey moom it laabul ba mu des mu doon ndundat loo xam ne dafa doon loo xam ne amul deret juy yor lu mel ne sax walla weñ wala yu demee noonu su boobaa ñoom seeni medd moom laab na ndax ñoo amuñu deret joo xam ne day yor kon loolu mat naa xàmmee ngir mën a matale loolu ñuy wax taaratul xabas ba tey su fekkee ne am na ci yoo xam ne am na ci loo xam ne sobe la te néeg bokkut ci loo xam ne day bàyyi ko ci luy dund muy sàngara sàngara sobe la kon bu la taqee danga ko war a dindi bul ko julliwaale kon loolu rek lañ doon indi ci gàttal loo xam ne danañ ci mën a eh, yóbbaloo ngir fexe ba matale li ñuy wax tahaaratul xabas muy fexe ba saw yaram dañ ci sobe eh, barab bi ngay jullee dañ ci sobe eh, yére yi ngay sol it dañ ci sobe nga mën a laab laab goog yi kon ñaari laab yooyu mooy am moo xam tahaara muy tahaaratul xadas ak tahaaratul xabas kon ñu uh, wéyal uh, bind bi ñu ñu ngi toll woon ci mu teg ci ne taarikuha aji bàyyi laab bi xayri usrin ci lu dul ngànt xilaa loolu xelloof na ko yuqtalul def na ko rey xaddan rayu gétan duuna kufrin ci lu dul rayu kéefar fa xilan na nga xellu nee na képp koo xam ne bàyyi na laab ci benn ci lu dul ngànt su boobaa su fekkee ne da ko bàyyi noonu rek waaye moom weddiwut ne laab dafa war waaye da ko bañ a def su boobaa moo ku bàyyi woon julli rek ñoo yem su boobaa ab saay-saay la dañu koy àtte te bu ñu ko àttee dañuy jàpp ne ah, rey ga ko rey reyu reyu géttan lay doon lépp su boobaa lépp loo xam ne danañ ko defal ab jullit rek danañ ko ko defal ndax idi ngir asalaatu julli laa tatimmu du mën a mat abadan mukk illa biha ndare ci moom laab wujubuha kon warug laab badaa feeñ na xataan ci lu dog li tax mooy julli mënta ñàkk te julli balaa moo mën a baax laab da koy jiitu kon lépp loo xam ne waxoon nañ ko ci julli rek képp ku weddi warug julli ah, da ngaa murtat kon noonu lay demee rek ci laab képp koo xam ne weddi nga warug laab da ngaa murtat ba tey képp koo xam ne bàyyi na laab moo ko bàyyi julli ñooyam kon lañ waxoon àtte boobu rek ñoo ñoo bokk kon daal euh, suñu bind bi day day day day firndeel rek warug làpp ci war gu mu war kon mbokk yi ñu dox leen dig daje ba aljuma bii di ñëw incha allah ci waxtu wi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci laay dooree daara ramaani moo dikki jox nga neel daara rayi moo ma jóg man di dem daara yowmal qiyaamate ñëppay xam lu dib daara